spécial tamxarit lay doon ak ren herbe épice sama gars yi ay ca leen ñu bomb cere ji waaw waaw ànd ceeg ren herbe épice mani jàppal ni lépp loo jënd ci épice fii ba tamxarit bi am nga réduction 5 pour cent osez le bon goût du naturel sama gars yi ak ren herbe épice asalaamaaleykum waa Alphie nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ayca ayca ayca leen ñu bomb cere ji waaw nañ leen bomb cere ji ak ren herbe épice nañ ko daaw fekkee déwoon nañ ko baaxantal rek sama gars yi waaw nañu tàmbalee cere ginaar waaw ren herbe épice nag wàccee na ay paquet paquet pack yu bees tàkk waaw ay packaging maanaam emballage yoo xamante ne euh, spécial tam la waaw kañ mooy bu ñuul bi ngay gis lépp nag lu ngeen jënd ci spécial tam xarit bi euh, am ngeen réduction 5 pour cent waaye pack yi bokku ci bépp épice boo jënd rek da ngay am réduction cinq pour cent et puis su cere bi nag ku ne xam na ni mooy bomb période bii ñu toll waaw ndax euh, ren RB Piste ak Alphie Cuisine dañ leen di andil ay cere yu am solo ñu fas yéene bomb cere ji nag waaw toujours nag comme ni ñu koy defee ànd ceeg ren RB Piste tàmbalee nag cere ginaar waaw ma am fi sama épice su soos épice su nokkos épice su cere ak épice su lakk ginaar voilà lakk ginaar bi ndax comme cere cere ginaar lay defar légumes yaa ngi tegee voilà chou-fleur carotte courgette gaa ngi tege dagg naa sama tomate fraîche tomate loqati baa ngi tege voilà am naa laurier euh, di fas yéene euh, jàmb laalo bi waaw monter laalo bi donc euh, laalo laalu mbépp waaw kañ laalu mbépp la ñuy fas yéene moom it yëngal ko ba mu ba mu far waaw kay poulet fermier nag tey moom laa am waaw kañ laalo ji mën na xaar ba ci kanam épice cere bi nag ku ko jël te ku ko jëlul sàll ko ci sa cere nag moom yaa ngi rate loo xamante ni kenn du la ko mën nettali waaw ndax épice cere bi fan yi nee naa mooy bomb épice cere bi nga xamante ni ren herbe épice def na ci laurier ba mu saf waaw kañ def ci ay graines de boole ay épices yu bari jaxase ko ci saf na laurier maa la wax lii boo ko dooree ci sa cere rek ngay mën a comprendre ndax euh, ñi ko utiliser daaw utiliser ko daawaati géej xam nañ li may wax lakk ginaar bi nag moom laay jël sama nokkos bi nga xamante ni moom laa fi dese ci nokkos royal bi ma am fi ma fi amoon doole ci pure d'ail bi moom laay def nii épice lakk lakk euh, ginaar bi sànni ci épice nokkos bi euh, daal di tàmbali nag piqué ginaar bi mais laataa loolu euh, damay xorom ginaar gi ba pare. waaw léegi bu ñu xoromee daal di jël sunu épice nokkos def ko ci ci mélange bi voilà yéen a ma gën a xam daal niñ koy niñ koy faral di defee rek. waaw préliminaire yi ci ci ci ci cere euh, benn la en général euh, li ñuy wax départ yëpp départ yëppay yëppay bokk ku nekk rek da ngay da ngay am say astuce am say fem yi ngay yi ngay def am na ñoo xamante ni dañuy dëbb seen poivron am na ñoo xamante ni seen cere day saf kaani am na ñoo xam ne seen cere day saf poobar waaw kay man nag bëgg naa cere light waaw sama cere bëgg naa muy saf suukar guubi tem-teme waaw kay nekk cere ndar waaw léegi bu ko defee nag ñu daal di jël suñu marinade Euh, ak sunu roof piqué ginaar ki waaw koñ dugal ko ci biir ba mu saf sap taq ko nag mi dama ko dama ko takk boo amee sa wëñ yi nga xamante ni mooy fil fil euh, alimentaire yi moom ngay jël takk ginaar gi parce que day gën a rafet parce que ginaar en général soo ko rosee rek day ubbeeku te bëggee ma ko bëggee ma ko noonu waaw dama bëgg mu ne mu ne mu rek la daal toog benn place waaw na réglé rek toog benn place léegi ana ñaare lii di laaj reeru tam xarit awa yu koy joxe bëgg naa ngeen wax seen wane seen bopp ci commentaire yi waaw. mais nag ku laajul sa reeru tam xarit tamit kenn du ko jox de waaw ñaareelu fexe leen ba féroce rek dem laaji seen seen cere seen reeru tam xarit maa la wax lii. waaw kon commentaire yooyu daf may neex ci Facebook bi rek wala ci euh, YouTube bi waaw sama ginaar sama poulet fermier ngi noonu di retourné wu ma dugalaale carotte yi waaw mu wétali ko ndax dafa xaw a waaw dafa xaw a wéet man bëgguma di togg ñam yi di wéet noonu di triste waaw kon gisoo bi mu gisee carotte bi ni mu commencé jël couleur ah yow sama épice ren herbe épice nokkos ak ren herbe épice lakk ginaar bi nga xamante ne wër na àdduna lakk ginaar gi nga xamante ne moom la nit ñi di waxtaane waaw moom la gars yi di waxtaane waaw bàyyi leen bu yi industriel ñëw ci naturel bi osez le gu bon goût du naturel ak ren herbe épice fekk na sax sama poro bi ñëw waaw kay ngan di man maami poro la ma léew a jëndal waaw moom la moom laa fejet noonu donc yooyu nekk foofu moom laay nokkos ma daal di euh, saafaat karoot euh, bi def ci pataas bi aw ma ñàmmi tey waaw waaye am naa courgette am fi chou waaw chou moom dafa neex ci cere man maa bëgg chou ci ceeb bu xonq ak ci cere voilà ak ci ciw léegi nag ñu rosi sama euh, oignon bi ma fi amoon oignon vert Euh, ak pooro bi moom laa jël rosé ko bàyyi tuuti mu jël couleur ma daal def sama tomate tomate jàmb gi waaw kay def sama tomate non non tomate loqati tomate loqati laay def bàyyi ko ba mu dog voilà ma daal di jël nag tomate farce bi sànni ko ci biir mu ngoog léegi nag fii dañuy bàyyi waaw di ko remuer ba mu dog gis nga ba changer couleur parce que biñ ko ciy def dafa rosoon léegi bu dogee da ngay gis ni couleur bi dafay tiire ci rouge et cere bi nag fii lay dugg waaw kay aawo yi bu ngeen di joxee reeru tamxarit bu leen fàtte jënd ci épisu cere bi bu ren herbe épice waaw boole ko ci reeru tamxarit yi ngeen di jox seen seen ñaareeli waaw koy ñaareeli yéen bu ñu leen joxee xaalis bu leen fàtte bu ngeen di ndugg ngeen boole ci épisu cere bu ren herbe épice lu ngeen fa jënd ci période tamxarit bi rek am ngeen réduction 5 pour cent waaye pak yi bokk si waaw boo jëndee sa épice lokos wala nga jënd sa épice lakk ginaar wala nga jënd sa épice cere da ngay am réduction bu 5 pour cent voilà léegi ñu ñulug bu ñu ñu ñulugee daal di jël sunu euh, ginaar gi tëmbalaat ko ci biir def ci légumes yi bàyyi ba mu ñor bàyyi ba ginaar gi ba euh, cere ji xelli waaw diw bi génn et puis mu far ñu def ci sunu nokkos bàyyi ko ba mu far daal voilà pour sama débutante yeeg étudiant yi nga xamante ni dañuy suivre Alphie Cuisine di kontaan ci yéen ci accueil bi nga xamante ne moom la ñu moom laa am Sénégal voilà et puis j'étais très très ci ci ci ni gars yi ni ñuy seetaanee Alphie Cuisine voilà foo tourné ñi gars yi abonné naa ci YouTube bi foo tourné ci YouTube bi ci avion bi fa ngay escale ci biir Dakar ci biir centre ville bi ca marché ya yow daal foo romb rek gars yi ngi naan ñu ngi ci YouTube bi ok kenn du yéen sama kenn du yéen ay walaalo ba yéeg na. laalo ba yëg na ba ma nekkee xale bu ñu daan cere bu ma mënul woon ba ma mënulee woon togg cere euh, dama daan taxaw rek ni sama yaay jël sama kudd rek ni sama yaay jox ma maay maay maay yëngal laalo bi voilà ñu jox ma sama kudd nag may yëngal léegi cere ji comme cere bu wow laa am man cere bu wow su ma ko jinnee te xaw ma fu ma ko jinnee dama koy xaw a sebet au lieu may jël ndox bi rek kaas ko dama koy dama koy mel ni lu ko xaw a sebet xent ndox bi parce que des fois nga gis yu ñuul ay affaire yu ñuul yoo xamante ne bokkul si cere ji voilà comme nag ñun micro-ondes la ñu am damay jël sama film alimentaire comme su may tey ceeb ma daal di jël nag dugal ko ci micro-ondes bi pandant cinq minutes léegi su ma génnee yëngalaat defaat sama papier film delloo ko ci micro onde bi voilà ci noonu ñu daal di yëraale sunu sunu cere sunu soos waaw ginaar gaa ngi nele def toogaayu toogaayu toogaay bu correct voilà waaw di xaar ñu tourné ko maa la wax lii poulet fermier tey laal laal mooy poulet bi nga xamante ni guuba neex na dëgërul te li nga ko jox rek la lay delloo waaw du ginaar yi di tas ñor xom lay def saf sap maa la wax li épice épice lakk lakk lakk ginaar bi ñëw def def si def si façon wam voilà léegi nag gis nga cere bi ma dugaloon ci micro-onde bi génne naa ko léegi dañuy yëngal laalo ko muñ ko laalowee ba pare tamit dama koy dafa ni ma ci defaat papier film dugalaat ko ci micro-onde bi donc ci ñi nga xamante ni amuñu micro-onde moment bi inde bi ci la ñuy tay bu ñu tayee ba mu ba mu dikk ñu daal di jël sotti bomb tame génnee génnee cere bu sew bi waaw comme ni ko sama yaay di defee bu ko defee nag ñu nga daal di defar sa laalo delloo waat ko ci inde bi ba mu saxaar nga daal di génnee nag réserver ko xaar diw gi pare ñu bomb <laughs> su ma jumulee noonu la de <laughs> waaw noonu laa ko doon gisee sama yaay di ko defee waa kay Fall Njaga yaaram ma nga Liberté 4 toog chéri Pamalal waa koy léegi mi ngoog ginaar gee ngi ñor na mën nañ ko bàyyi ba ci kanam seppi pataas bi ak carotte bi daal di dugal courgette bi ak chou bi voilà ku ci ñor rek ñu seppale tegele na le le temps que ñuy ñëw ci ginaar bi léegi nag euh, damay dolliwaat nokkos pour mu gën a far nga xamante parce que li ciy des du bëri comme ça nokkos bi dugg bu baax ginaar gi ma rectifier sama assaisonnement def sama suukar voilà tondi diw bi pour jàll ci bomb bi su ko defee ma daal di bàyyi mu far nag ñu ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni mooy bombu cere bi waaw nokkos bi nokkos bi am poivron bi bi am pooro bi ak euh, tout nokkos bi desoon ci bi may marine ginaar gi moom laa jël jaxase ko yëpp def ko ci sànni naa ci laurier voilà bien vrai que épice cere bu ren herbe épice dafa saf laurier ba pare waaye sànni ci ñaari xobu laurier du ko yàq maa la wax lii waaw kañ léegi nag ñu génnee dernière étape bu cere bi daal di nag yëngal fas yéene ko bomb bomb bu laay am naa sama sista bu ma romb aéroport bi neen ma Alfi cere ji bomb bi bu mu bëri diw man dèjà bu may togg cere du bëri diw te limite sax mën nga bañ bañ a bomb cere donc option la choix la et puis sunu sunu waaw mais cere rek nga jël ko nii rek lekk ko c'est c'est c'est léegi damay def xorom ñu daal di jël tonni tuuti diw def sunu diw ñor parce que mooy def guub bi guub bi nga xamante ni moom laay wut man ci cere tam xarit diw ñor bi daal di def tuuti suukar def euh, haricot blanc ak raisin voilà ci cere ginaar bi loolu rek laa def. am na ñoo xam ne dañuy def dolli seen jaga voilà dolli ci yeneen ingrédients yoo xamante ni dafay gën a neexal cere bi mais cere moom lu mu gën a léger rek euh, gën a neex et puis digestion bi gën a facile. voilà parce que ay euh, ñam la yoo xamante ni dafa xaw a diis teel ko lekk dina baax waaw buñ ko lekkee ba pare nag daal di ci laal benn thé wala benn infusion bu baax boo xamante ni dinañu may digestion facile. voilà haricot baa ngi noonu di ci dugg ñu daal di def suñu raisin sec jël diw bi nga xamante ni moom la ñu récupérer ak tuuti ñeex parce que man du jël diw kase diw ñor bi mi ñu def lu di tu léegi tuuti sukkar daal di koy nag sotti ci kaw cere bi voilà fas yéene ko bomb waaw kay léegi lii des rek mooy ñu jël épice cere bu ren herbe épice bi dolli ko ci yokk cere dolli ñeex bu ngeen dollee lii bu ngeen defaree lii dootu leen ko bàyyi ok yéen fexe leen ba ko rek leen ba épices euh, su cere bi sori waaw wis ko ci tuuti mu ànd ci guubu neex bu ko defee ñu daal di bomb nag jël suñu temps yëngal ko ba mu maase ba nga xamante ni couleur cere bi dafay changer parce que euh, diw bi daf koy xaw a xonqal tuuti voilà moment bii rek may nuyuwaale euh, tim awo voilà tim ñaareel li nga xamante ni moment bi ñu ngi bëgg a rey cere tam xarit reeru tam xarit voilà awo yi yéen it gore leen rek joxe leen joxe leen reer yi waaw joxe leen seen reeru reeru reeru tamxarit voilà mi ngoog léegi nag bomb bi bomb nañ ko ba mu ba mu ba mu maase li ñuy def mooy bàyyi sauce bi far ñu rectifier assaisonnement bi et puis nag jàll ci dressage bi voilà parce que cere moom waaj bi rek moo defar waaj bi rek moo metti mais cere defar bi yomb na waaw bu jaaree yoon étape par étape rek defar bi dafay dafay dafay gaaw voilà sunu épice cere bi nga xamante ne ren herbe épice euh, période bi ku ne xam na ni booy cere te utiliser woo épice su cere bi yaa ngi rate lu la kenn dul nettali waaw kay nañu bàyyi sunu ñeex far légumes yu ñor ñu daal di nag jàll ci li nga xamante ni mooy dressage bi ak dégustation bi tàmm naa tuuti meew waaw tuuti meew ci côté bi ndax sunu aada la tamit meew ak cere rek boo ko sàlloo doo jël ndaare waaw kay mi nag sama gars yi bu ngeen bu leen fàtte seen numéro téléphone yi pour commander seen pack spécial tamxarit voilà euh, muy épices yu cere bii nga xamante ni tamxarit moo ko yëkkati waaye nag yeneen épices yaa ngi disponible bu ngeen ci jënd rek da ngeen di am réduction 5 pour cent fu ngeen nekk ci Dakar mën nañ leen livrer voilà fu ngeen nekkee Europe dugg ci site internet bi passé seen commande jaajëfal naa leen sama gars yi on se donne rendez-vous très bientôt pour beneen cere d'ici là ñu bomb cere ji rek sama gars yi ak Reen Herbes Épices waaw koy naa leen sama gars yi spécial Tamxarit lay doon ak Reen Herbes sama gars yi ay ca leen ñu bomb cere ji waaw waaw ànd ceeg ren Herbes Épices mani jàppal ni lépp loo jënd ci épices fii ba Tamxarit bi am nga réduction 5 pour cent osez le bon goût du naturel sama gars yi ak ren Herbes Épices